kon mbokk yi ñu dellusiwaat ba tey rek di leen siyaaraat bu baax a baax di leen ndokkeel ci koor gi dikkaat ak yéen rek ci naafile yi nga xam leen di jàlleel ci bis bu nekk ñu toll nag kon ci guddi juróom benneel ga sëriñ Sama Mbakke da wax ni képp ku ci julli ñaari rakka benn sulmat rekk la rakka bu ci nekk fatiha ak qul huwa allahu ahad fukki yoon ak ñaar nga koy jàng rakka bu ci nekk fatiha qul huwa allahu ahad fukki yoon ak ñaar te ñaar rakka rek la mel nga ni ku julli ci maqaama ibrahima junni rakka julli ci jàkkay makka junni rakka kon nag wax nañu jaamu yàlla yi ñi nga rawantee ci bërëb bi nga ko defee ak ci waxtu ak ci temps bi kenn ku nekk xam ne ne julli ci géej ak julli ci géej yi yemuñu yemuñu ay maqaama yemuñu ak dara ay daraja kenn ku nekk julli na waaye julli ga sëriñ Tuubaa julloon ci géej ga mënta yem ak julli ñu julli fii waaye ku julli tamit ci maqam Ibrahima julli rakka wala ku julli ci biir Màkka tamit julli rakka ci biir Kaaba ga mënta yem ak ku julli ci benn bërëb ndax bërëb yi dañoo gën a teddante loolu ci coobare borom sant la nekk kon nag yiw wu baree nga wu baree baree nga ci woo xam ne kenn mënta xam tolluwaayam ci ci dina kenn mënu koo xiyaas nekkul tiyaabo ji ñu natt naan fi la tàmbale fi la yem mboolem naafile yi ñu fi wax yëpp seen daa bari lool te buñ toppee ngëneel yi mën naa am li ñu war a leeral dëgg duñ ko leeral te farata ji dëgg mooy xamal leen tey ñaar raakaar lañu war a julli ak lan lañ ci war a tari kon loolu moo nekk guddik juróom benneel gi incha allahu rabbi